jërë ngeen jëf euh, public bu rafet bi asalaamaaleykum chers téléspectateurs ñu ngi amati mbégte ak kontaante di leen dalal ci seen émission bopp nag yéen ko moom nee naa njegemaar fii ci télévision Futur Média c'est avec beaucoup de plaisir lañ leen di retrouver surtout tey di tijji saison bu bees njegemaar décor bu bees lieu bu bees jingle yu bees nee naa leen générique bu bees tàccu leen loolu macha allah tey lépp a bees public bi rafet tàccu leen seen bopp mu ngi noonu kon njege maar seen njege maar di door saison bu bees tàq ñu dajji ko ci paquet tey nag ñu indil leen beneen thème de société muy thème bu doy waar di thème bu yitteel ñëpp àddina wërngal këpp di thème boo xam ne jot na nag yaakaar naa ñu taxaw def ci gëstu waxtaan ci sottante ci xalaat trouver des solutions ou des débuts de solution tey lan la tey dañu ne dëkkandoo lañ leen indil olof nee na dëkkandoo jàmm ci gën ndax bés du ñàkk loolu lañ fas yéenee jàngat tubaab ne le bon voisinage kon nag dëkkandoo mu ngi noonu. ci biir loolu nag euh, comme ni may kay faral di dalal defalee defee rek à chaque fois damay dalal sociologue sociologue moo xam ni société bi tëddee moo xam ni société bi di doxee moo xam jéego yi nga xam ne sociologue bi société bi mu ngi koy def kon damay dalal sama mag sama xarit Ali Khoudia Diaw Ali dalal ak jàmm ci saison bu bees tàq bi nga war koo tijji nag loo ci wax. xanaa kontaan ci rek et puis kontaan ci yow kontaan ci téléspectateurs yi. tàcc leen seen bopp ñëw nañ ci émission bu bees merci beaucoup Adja. mu ngi noonu. voilà bu ma jugee ci Ali Khoudia damay dalal yi tamit kooku nga xam ne yaakaar naa ne miin nañ ko ci biir njëgema ma koy wooyee suñu juriste maison lépp li nga xam ne dafa laaj euh, euh, justice lépp loo nga xam ne loi dafa am lu mu ciy wax rek dañ koy dalal mu wax ñu lu ci loi wax kooku mooy kan Ousseynou Ka s'il vous plaît c'est avec beaucoup de plaisir lañ lay retrouver à chaque fois su ma jógee ci Ousseynou Ka nag émission bi nee naa leen damay recevoir monsieur madame tout le monde tey nag madame tout le monde kan la muy Astou Seck tàccu leen Astou Astou nii nga def dalal ak jàmm mu ngi noonu may dalal nag euh, keneen di sama frère moom i tamit man na moon ko nag gëj kaa gis ci émission bi temps yi mu zappe woon waaye njege maar moom ku ko fase di nga ko baara saw ja looloo am temps yi daf ñu zappe woon waaye dem dem ñëwaat rek. mukk yéen zappe leen kooku loolu dee dem sawaraam ak gën ñu wóorul tàcc leen <laughs> toujours noonu rek ñuy dalal nag suñu yaay ndax tey buñu ne dëkkandoo. laaj nañu taxaw gis suñu yaay yi nan lañ ko daan dundee muy dundun bu rafet suñu maam yi nan lañ ko daan dundee muy jàmm ju bari ay turandoo di ci juddu ay xaritoo bu mat sëkk nekk ci kon ci biir dëkkandoo ñuy dalal suñu yaay maire Dial musaa Allé bilaay dëkkandoo jàmm ca gën ndax bés du ñàkk Ajaa si sa dëkkandoo njege maare bi mooy dëkkandoo bulu xuloog sa dëkkandoo ay sa dëkkandoo sa njabootoo gu ndaw bu mu tax ngay xuloog sa dëkkandoo ewaay sa dëkkandoo sa xale yu ndaw yi bu mu tax ngay dëngoog sa dëkkandoo sa njabootu gu ndaw bu mu tax ngay xuloog sa dëkkandoo kooku mooy maire Feeling Patch maire Dial Feeling Patch dara ak jàmm mu gunge génération yu bare bare bari yàlla nag fi yàlla yàggal ci suñu kanam mu ñuy gunge ba ci kanam ak kanam kon nag thème bi mooy loolu dëkkandoo le bon voisinage lu ñu dem daf lu dul xool suñu dalal jàmm lu ci mbedd mi wax nga ma wax. dëkkandoo boobu ak ngi ja parce que boo déranger sa dëkkandoo wala xam nga yenn yenn yi xam waa dëkkandoo daal mooy lool daal da ko war a xoolee ni comme comme comme comme ni ngay kiyee sa bopp rek da nga ko war a siisee comme sa dëkkandoo ko war a jàppe sa bopp rek mais ak moom dafa euh, metti moom bu fekkee da ngaa dëkk si kër dëkk fa ay nit waroo déranger kenn. ndax bëggoo ku la déranger loo bëggul ku la ko def rek bu ko def kenn. dëkkandoo daal da ngeen a war a seq jàmm li nga xam ne bëggoo ko def sa bopp waroo koo def sa dëkkandoo parce que dëkkandoo dafa am àq boo xëyee war nga koo nuyu moom itam war naa dugg sa néeg nuyu la ngeen seq jàmm. am na ñoo xam ne jamono fu la ñuy def da nga luyee ma luyee rek la ñuy def da ngay fay dëkk damay fay noonu rek lañ ko jàppee. ka dëkkandoo boo feebaree moom ngay njëkk a gis door a gis sa mbokk. moo tax ngeen war a def rek seq jàmm. ñun ay musulman lañu boo gisee ñuy wax ci dëkkandoo comme lu diine wax si dëkkandoo dëkkandoo ñoom ñoo nga gën a bokkal ko ñu nga bokkal même sans quoi parce que dëkkandoo tey jii ñoom kese ngay mën a feebar tey ñu ah, ñu taxawu la avancé mbokk di ñëw ñu nga bokkal deret parce te tey boo nee mbokk rek mooy dëkkandoo. suba soo yeewoo da ngaa war a baalu sa dëkkandoo àq ndax peut-être ngaa dëkkandoo nit mu feebar ci biir kër gi. tëdd si biir néeg bi doo xam ndax yaa ngi koy déranger wala déet. moo tax tey dëkkandoo da war a am àq boo xam àq am na àq boo xamante ni tey comme la ko lislaam waxee am na àq boo xamante ni mu ngi nekk sa diggante ak loolu mën na la dugal parce que tey ji waroo toggul ñam bu nga xamante ni day xeeñ mu xeeñ sa dëkkandoo ci booloo ko si. moo tax dëkkandoo dafa for daal dëkkandoo moo moom nga war a gën a sóoraale te dafa bokk si ponk jaamu yàlla la bokk quoi. parce que tey ji dëkkandoo tey moo nekk loo xamante ne tey ji mën na la dugal safara mën la dugal ajana na la dëgg rek ñor bu yee fig na bul xam bu ay mooy dalal jàmm li mbedd mi wax ci dëkkandoo du ñu dem nag lu dul dem ci suñu rubrique toj yax bi xool définition lan mooy dëkkandoo. lan mooy dëkkandoo mooy dëkkandoo ngi ci sa biir kër nga dëkk ak moom dëkkandoo nga yeewu bëkk ak moom koñ bi dëkkandoo ngay dëkkal seen kër yi jëkk dëkkandoo ngay dendal seen kër yi jëlloo kon dëkkandoo jàmm ci gën yàgg-yàgg bi seen ñëw dëkkandoo la ñetti dëkkandoo la bii dangeen di bokk dëkk te diine muy benn bii da di bokk deret dëkk bii da ngeen di bokk diine bokk deret mu dellu dëkk ak moom kooku mooy ñetti dëkkandoo yam ci àdduna sa kanam ak sa ginnaaw ci ñeen ku ci nekk ñeen fukki kër yépp ni sa ndeyjoor ak sa càmmoñ loo yooyu quatre points yépp ay dëkkandoo lañ te nit ki soo jaaxlee ci àdduna wala nga am bànneex say ndëkkandoo ngay njëkk a gis loolu moo tax dëkkandoo lu mat a sàmm la te lu mat a rafetal la. dëkkandoo mooy ki nga dëkkal mun nga bokk moom comme mun nga bañ a bokkax moom mais dëkk bu yàgg sax day nekk mbokk. sa boroom mooy sa njëkk dëkkandoo ndax démb bi dara dul dara moom la bi nga ñëwee moom la booy demit moom kese ngay deseel kon dëkkandoo boobu jar naa bàyyi xel bi ci des mooy malaayika yi. malaaka yi dëkkandoo la yi nga xam ne ñoo nekk ak yow maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi na atiit la yàlla wax koo gis ci àdduna rek am na boo mazooree malaaka boo xam ne moom ngay àndal ba keroog yow yowmal qiyaamati bañ lay denc ci sa biir bàmmeel kooku dëkkandoo la ku jar a bàyyi xel la ndax kii mooy bind sa yu baax kii mooy bind sa yekk nakk naka sudul noonu kooku dëkkandoo la yaayu Fat Bintou Diop ñu koy nuyu bu baax a baax kon campé nañ la débat ñoom nee nañ loolu mooy dëkkandoo damay laaj nag ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau bi yaakaar naa sama sociologue laay dooree muy Ali Khoudia Diaw Ali tey ji yow nan ngay définir dëkkandoo ak lan nga xalaat ci suñu temu tey waaw Adja maa ngi lay remercier euh, dina la aussi ci euh, saison bi nga commencé ci Njegemaar presque euh, Olof Ndiaye tënk na lépp ñi ñu gis aussi ci micro trottoir bi foog naa aussi définir nañ wax ji mhm. dëkkandoo daal mooy ki nga xam ne ci ñun la bokk mooy ki bokk ak ñun kër mooy ki bokkak ñun koñ mooy ki jëlloog ñun kër mooy suñu voisin de palier mooy ki jàkkaarloo nekk mooy ki nga xam ne daal yàlla def na mu sës ci ñun mën na nekk suñu mbokk mën na bañ a nekk suñu mbokk mais yàlla def na daal ñun ak moom ñooy dund ci kër gi ba ci sax ci biir koñ bi donc dëkkandoo mooy ki nga xam ne peut-être que euh, bu ñu amee xew wala lu mënta am muy événement bu baax wala bu bon moom mooy njëkk a teew mm-hmm. bu ñu amee aussi lu ñu neex wala lu ñu naqari peut-être que moom moo koy njëkk a yëg donc moo tax may wax naan mooy ki nga xam ne yàlla def na mu sës ci ñun donc mën na nekk góor mën na nekk jigéen mën na nekk suñu mbokk mën na nekk doxandéem mais ñun dañu jàngal ne euh, ci suñu cosaan ak suñuy aada ne nit ki bu ngeen xasee dëkk rek nekkatul doxandéem mm-hmm. donc la yàlla def na donc la daal dëkkandoo muy loo xam ne lu am importance la waaye comme phénomène boo gis rek am nay avantage yu dëkkandoo am am na aussi ay inconvénients yu mu am. tàcc leen Aly Khoudia euh, Mama Dial euh, naka ngay tey jii buñ la waxee dëkkandoo kan mooy dëkkandoo. waaw Adja euh, ñoo ngi nuyu ñëpp nag di sant torom nag yàlla. Mhm. sunu borom bi bind. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant ñi nu jur. Mhm. Adja dëkkandoo dëkkandoo li gën a for ci dëkkandoo mooy jëkkër ak jabar mhm. boroom kër ak soxnaam ñuy dëkk bi gën a wér li leen rax mooy doom sa doom mooy sa ñaareelu dëkkandoo yal na ko yàlla jox ñëpp nga doog nag ni damay dëkk ak sama jarbaatu jëkkër ci kër gi walla sama rakku ji kër wala sama mbokk koñ bi nga dëkk ñooy sa dëkkandoo Fat Bintou wax na ko léegi. Uh-huh. dëkk dafa am àq. dëkkandoo Adja dafa am àq te àq dafa sew. Uh-huh. ci diggante doomu aadama ak doomu adama xam nga yàlla mën naa jéggal ñëpp moom bokkatoo ñu mën na laa uh-huh. muy doomu ak doomu aadama mën naa am boo ko tooñee yàlla daf leen di bàyyi yéen ñaar nga jéggal sa morom kon dëkkandoo war na nekk loo xamante ni lu rafet lay doon ci diggante ñaar ñu dëkk te dëkk dafa fort de dafa fort dëkkandoo daf moo tax ma ni sa njaboot gu ndaw bu mu tax ngay dëngoog sa dëkkandoo parce que dëkkandoo mhm. mhm. mu jël mbalit teg ci euh, buntu këru dëkkandoom mhm. te du rafet te kat boo yuuxoo sa dëkkandoo ngay dëkk gis balaa say mbokk ñëw kon li olof léebu nee jàmm ci gën ndax bés du mu ngi noonu daañu ci dellusiwaat daañu ci dellusiwaat bu baax a baax Astou ñuy kontaan di la dalal ci suñu plateau Njëgëmar c'est avec beaucoup de plaisir li ma lay laaj rek mooy yow tamit naka ngay définir dëkkandoo. Adja d'abord damay sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ay waajur. tabarkàlla macha allah di la sant. danga ma laaj nag ci thème bu am importance. thème boo xamante ne bii moom la àddina di dund. moom la ñëpp di dund nit ku baax ku ne di ko dund mu am comme li sociologue wax ni am na avantage waaye am na inconvénient dëgg la te avantage yi bari na inconvénient yi tam na kenn ku nekk bu dooree rek tabarkàlla macha allah dañuy samp baaraam mhm. xool ne li nga wax nii ci ne dëkkandoo jàmm ca gën mhm. bu demee ba ci biir kenn ku nekk dina mën a développer li tax mu ne am na inconvénient wala am na avantage. am na solo tàccu leen ak euh, sama juriste maison euh, parce que thème bi euh, dafa bari jafe-jafe tey jii tribunal boo fa demee dëkkandoo bari nay procès dëkkandoo bari nay problème te loi yi tamit am lu mu ci wax di ko oowee le bon voisinage kon tey Ousseynou naka nga ñuy définir la yow dëkkandoo selon la loi. jërëjëf Adja maa ngi lay remercier di la féliciter ci saison bu bees bi. jërëjëf di remercier également. sa mhm. euh, public bi ak téléspectateurs yi. dëgg la dëkkandoo yoon lim ci nim mu ko définir lu simple la mooy nit ki nga xam ne nii da ngeen a bokk di yow nga koy gis nga koy gis mën na doon ki nga bokk ak appartement. Mhm. mën na doon ki nga bokk ak kër. mën na doon ki nga bokk ak koñ. nga jàkkaarloog moom wala nga jëlook moom wala nga fegook moom. mën a doon ki nga bokk ak euh, dëkk. Mhm. mën a doon ki nga bokk ak euh, réew. donc ñooñu mooy dëkkandoo loolu la yoon wax. donc à partir de cette définition li wolof wax moom la yoon den bon voisinage mooy dëkkandoo jàmm ca gën. Mhm. ndax dimbalante ak euh, assistante mooy dëkkandoo. donc loola yoon bu ñu koy def nit ñoo tax ñu koy def. Mhm. maanaam naka lañ mën a rataxalee diggante nit ñiy dund. ci seen biir loolu moom mooy yite yoon. donc buñ dikkee kon daanaka lépp tënk na ko euh, bu fekkee ne dañoo bëgg a rataxal ay diggante ci ñiy dund yoon tënk na donc dëkkandoo. Mhm. lu am solo la fi mu nekk nii comme ni nga ko wax aussi fi mu toll nii bëri na ay problèmes yu am yoo xam ni mhm. dëkkandoo moo ko indi. Mhm. ndax euh, buñ demee ba ci biir danañ ko mën a développer. dëgg la incha allah per nee naa la de ku ñu fase rek baara soos di ñu. ah bu ma fase day kii. waaw baax na damay boo xam waaw baax na. Ah, war naa cee teg birig. dëgg la yow lu bari ñëw toog. tey moom teg nga ci birig tàccu leen per. waaw per tey noo définir suñu thème parce que bi ma la waxee thème bi danga nga ne ma ay. loolu foor na. waaw waaw xam euh, di nuyu ñi nekk ci plateau bi ñëpp <laughs> rafet lu public bi toog. wax dëgg yàlla defaru nañ toor fa ah, kàlla macha allah baax na baax leen te dëgg dëgg yàlla waaw tàcc bopp baax <laughs> ma daal am na solo waaw xam nga thème bi nga indi day thème boo xam ne mën naa ni gis nga ndakaaru moom dama koo jël teg nee mhm. ndakaaru amul dëkkandoo ah? point pour premier partie ndakaaru ah gisuma ko boog man man xam nga dëgg la yàlla bëgg ndakaaru boog man tegu moo ko fi bët ndax ci point bu tuuti nag man yàggul bi ndox mi manqué. Ah. man gis naa kër goo xam ne ca suuf dong la robinet bay xelli ñi dëkk premier étage ak deuxième étage ñëpp bu ñuy duy ndox dañuy danañ daw lu mat ay 600 mètres di soog a am ndox te robine bi ci suuf ka dëkk ca suuf robinet baa ngay xelli te day lànk ne ko kàpp tëj jël kànnaar lonke ko ne ko ràtt tëj. kon xam nga kooka kooka moom. waxuma la bu ko àq dëkkandoo dale ah. waaye moom moom moom moom moom bala mu fee jugee dana ca teg bët xam nga ñu bag mag ñi dañuy wax naan euh, xarit dana gën doomu ndey mm-hmm. waaye gis nga dëkkandoo dëggit am na ñu nag am na ñu baax nag dëgg la mm-hmm. man mm-hmm. gis naa dëkkandoo yoo xam ne moom bala boo nee haa bala ngay daaneel ñu ne cirib taxaw sa kanam soxla sa lu mu mënti doon ñu faj ko sur le champ dëgg la waaye nag ca kanam daan gën a daañ dugg ci biir bu baax a baax a baax euh, kon toujours rek si suñu rubrique tojeex bi ñu dem xool naka lañ tojee yax bi ni ko lislaam définir dafa yaatu ndax dafa ne kër gi nga dëkk tey yow côté droite 41 maisons côté gauche 41 maisons sa penku 41 sa sow 41 waa léegi boo compter boo wàññee benn bi nga dendal keneen ki wàññi yokkaat benn rek daanaka àdduna bi ñun ñëpp dañuy wax ne ay voisinage lañu te nag li ci li loolu mooy dëkkandoo ci ci ci nii borom kër gi nga dëkkal si biir kër gi nga xam ne moo la gën a jege ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. kooku itam sa dëkkandoo la njaboot gi nga nekkal ci biir kër gi parce que ñun dañuy defee ne dëkkandoo mooy rek ki nga dendal kër mais ki nga bokkal ci sa biir néeg di sëy ak moom sa dëkkandoo la sa doom yi nga jur ba ba beroog ñuy génn di dem sëyi wala ñu dem jàngi say dëkkandoo lañu parce que moo tax àq bi dafa diis moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne aljaaru qabla daari ndax ndeysaan moom waxam day gàtt te am solo nee dëkkandoo avant kër. da ngay gis benn nit ñëw sanc si benn gox après tuuti am keneen ku ko wéttali mais kooku bu amee yar ba ca war bu ñëwee ndax euh, bu ñëwee dafa war a fëgg bunt boobu nekk nuyoo ñu dalal ko mu nekk man de maay diw tudd diw sant diw jógee fii maa ñëw fas yéene dëkk yow den ndax yow. Ah, ma bëgg daal ñu commencé si bisimilahi rahmaani rahim te muy rafet rek ba faw à partir de loolu nag ñuy sàmmante ay relation ba keneen di ñëw ñuy ñaan suñu borom bi loolu di law di law ba quartier ba mën a neex mooy ki nga dëkk mu yërëm la yërëm sa njaboot ndax njaboot jàmmay mbokkam mhm. su ko amee moom la bëgg su ko amul moom la bëgg njaboot jàmmay mbokkam koo xam ne bëggul sa njaboot xiif bëggul sa njaboot mar mu ngi xool tey jii ndax am nga dépense ci sa kër wala amuloo ko te bu dikkee da lay nuyu nuyu boo xam ne toog waxtaan ak yow am lu ma la fekk jox la ko ci wet gi te ma sàmba du ma démba du am na mag ñoo xamante ni bii kóllëre googoo tax tey jii am nañu seeni njaboot teralal ma diw boo amee paasu màkk sax yóbbul ma diw mu siyaare ji yonente ba nga ne waaye yaay lu tax mu ne dëkk noonu boole woon am na ñoo xam ne bu ñu bëgg dëkk si ci koñ bëgg nit ñi xam leen ndax léegi réew mi yàqu na ndax am na ñoo xam ne ay étranger lañu dañuy ñëw ci benn koñ bu wéet ñëw dem dëkk fa troisième étage bu guddee ñuy def naka sudul noonu ñooñu xam nga bëgguñu ku leen xam am ñoo xam ne ay nit ñu baax lañu suñu dëkk see ci koñ dañuy toog ba dal dugg ci kër yépp nuyoo ne la nangam laa sant noo sant man de maa fi dëkk si may sa dëkkandoo bu bees xam nga foofu lu rafet rek moo fay am. moom tamit bu ëllëgee mu sol dàllam ñëw sa biir kër ndax yow ba nga dëkk see da ngaa ñëw nuyu si ko moom it mu ñëw nuyu si la sargal la wan la ne la yëg nga ma waaye yëg naa la mm-hmm. kooku bu ëllëgee loo xewle muy jàmm wala muy safaan ba day ñëw sawar ñëw ci sa biir kër mais boo ñëwee yow nga tëju sa biir appartement jàpp sa njàmbur demoo ci kenn dikkoo ci kenn boo feebaroon bay dee it ajaa neexul ba neexul waaye nit ki tamit du jug sol dàllam ñëw ci sa biir kër di la seet kon looy wax li yaa tax léegi baax gu bari nit ñi wàññi danga naan kii ni mu sobee moom lu ko indi fii te pourtant boo demee de jikkooy jullit rek ko tax a jóg. képp ku fanaana suur te sa dëkkandoo xiif bés boobu yow doo jullit kon léegi ñaata jullit a nekk ci àdduna bi da ngay suur ba congelé ba denc yore nduggum un mois say mbokk say jege ñaale say dëkkandoo ñëpp nekk ci calvaire boo xam ne kenn xamul lu mu toll kon da ngay laajte ndax ay jullit lañu ñun réew mi tey wala déet. taa faat Bintu Diop sa laaj boobu foor na taa faatu sa laaj boobu ça fait peur bu xaar kon ñaata jullit a nekk Sénégal nga yaakaar na fi ne day ah <laughs> xanaa nu jéem a à app peu près rek moom daal da ngay à peu près ndax wax am am na solo de xam nga àqu dëkkandoo ci boppam sax baaxul te li wax am na solo gis nga da gis kër goo xam ni yow ba ngay dëkk si ci kër gi daanaka yaa ka dëkkoon sawet wet yéen a maase. Mhm. nga dem teg benn premier étage teg deuxième étage ree rek ganaar ba regg say doom jël yax yi di jël ca geneen kër ga. wala ñu footee ca kaw tuur ko muy tuuru ci biir geneen kër te pourtant kooku sa dëkkandoo la te attention de ndakaaru moom la majeure partie. Mhm. la majeure partie. moom respecté wu nu dëkkandoo. Mhm. sérieusement il faut qu'on le dise. ndakaaru respecté wu nu dëkkandoo. kër yoo xam ne du ñu biku kër yoo xam ne xamoo heure bu ñuy ubbeeku xamoo yan heure la xamoo ñan ñoo fa dëkk. Mm-hmm. xamoo ñan ñoo te loolu baaxul. boo demee ca dëkk ba ca dëkk yu sori àll ya gis nga boo demee ci gannaaw ndànd. Mm-hmm. am na dëkk bu ñu naan ndigal kër ma Masamba ma mm-hmm. maam Masamba Ndiaye gis nga foofa dëkk ba am na lu mat 60 buntu kër wala mu ëpp ko te barke yonent bi benn njël a am ca dëkk ba benn njël. benn njël genn njël a fa yor ci benn magasin la ne kenn ay togg. ñu yàq lépp indi ci diggu pénc mi dëkk bi ñëpp génn noo njëw daja lekk ndékki noonu reer noonu loolu ndax am na ndakaaru waaw ah, kon kon xel xalaatu ko xel xalaatu ko maman euh, euh, yow laay laaj ndax dañu développé sànq ci dëkkandoo bu njëkk ba ni nit ñi dëkkee woon bu njëkk ba yaakaar naa ne kër yi ay këru bunt sarala wala woon buntu sax amul woon faf benn yoon ñu wax léegi nii bu njëkk ba sa dëkkandoo daana toog du am dépense nga yoot nànk dem jox ko te sàmba du xam ma dem ba du dem da ngay gis mag mu dem ba màgget naan diw yóbbul ma diw màkk nga ne xanaa du dëkkandoo rek fekk lam ko ji ci teraanga lam ko taxawu di ko xoolal njabootam di ko sàmmal njabootam tey loolu boo ko jëlee nga teg ka sa kanam nga xool ñun tey ni ñuy dundee maa noonu noo ko noo ko loo koy jàngatee. Euh, li nu wax rek euh, wax bu nekk danga ci laal ba gis ku la ca laal. Mm-hmm. xam nga li nga wax ni dëkk bu jëkk ba amul woon buntu benn buntu. dëgg la dafay am poot am sarale. Mm-hmm. nga dugg ci bii kër génn ci gii kër jaar ci gii kër pourtant léegi am na sax gis nga yëmbal gi boo fi demee wala yoof gi ay bunt sarale moo fa ne da jaar ci këru doomu aadama muy añ nga romb ko dem ci beneen kër mais loolu moo jafe ci àdduna bi léegi. Mm-hmm. xam nga ñun dañoo def affaire tubaab ba nga xam ne ay sikaabak ay ma maris gé ma dëkk waaye man xam nga man géwal laa. dëgg la man sama buntu kër yenn saa yi sax dañ may sàcc càcc gu métti goo xam ne xaw ma tëju. dëgg la tëju xaw ma ko buntu kër bi te di nga dëkk ak nit Adja fii mu dëkk fii ngeen am lu mat ñaari at du ngeen gisante wala ñaari weer doo ko gis du la gis. Mm-hmm. te Adja loolu gënul ci dëkkandoo. dëkk ndoo danoo wax ni bu lu mu mën a doon ci àdduna nanga nga moom ci ngor ànd ak moom ci diine ànd moom ci lépp di seet xam nga man looloo tax ñun artistes yi danoo de mhm. parce que day am ku toxu si ci dëkk boo ma dëkk en masse dem ni ay bokkam maag maag Adja Dial Mbaye noo dëkk boo demee kër Dial Mbaye boo ko laajee. dina la indi. adresse lay doon. day doon adresse taman du ma du moom du ma nuyu si. Mhm. du ma xam dëkk na da di créé ne salaamaaleykum Adja Diallo laay seet man de Faat Faal nee na la dëkk yaa ngi ma ma jàkkaarloo ma ne ko ak gisaguma ko de. Mhm. xanaa man dinaa ko seetal sama bopp dem nuyu jul ko sama bopp. te loolu erreur la doy na mhm. ñu xam ni ki ah fii la dëkk te lii ko tax a jóg. muy jàmm sa diggante ak moom. mu nuyu si la nga nuyu ko. loolu mooy dëkkandoo dëkkandoo dañ koy rafetal. Ali Khoudia euh, ñaari société yooyu tey ñu ñu wax muy société bu njëkk ba di société bi nit ñi di dundee dundin boo xam ne c'est diamétralement opposé dara nuróowu ceeg moroomam lan nga yaakaar ne moo war a dox ba indi suñu société mu mel noonu. waaw xam nga aja euh, maire Diall wax na ko maa ngi koy féliciter encore di ko rendre hommage. Mhm. Euh, bu njëkk ba dëkkandoo daal même boo daa dëkk si ci koñ après da ngay dem nuyoo pour nit ñi xam la. Mhm. boo fa commencé tabax sax nit ñi dinañ xam ne fii kat ajaasi moo fii tabax déjà ñu ngi lay préparer pour ëllëg boo dëkk see euh, dëkkin bi mën a tax bu njëkk ba dëkkandoo sax mooy ki nga xam ne mën nga tukki dénk ko sa njaboot ndax boo demee sa xel day dal ndax day mel na yaay moom moom mooy yow bu njëkk ba aussi façon yar gi dafa amoon solo ci doomu aadama parce que kër goo dem dañuy yar ka fay ña fay juddoo. Mhm. yar dafa amoon doole. société traditionnelle loolu moo ko différencier ak léegi bu njëkk bay yar ñëpp a doon yar yar bi c'était communautaire. sa yaay sa papa dañ lay yar ci kër gi nga say nijaay say bàjjan di la yar mais boo génnee ci mbedd mi dëkkandoo bi sës ci yow yar la. Mhm. parce que dalay jàppee comme doomam. Mhm. yooyu yëpp amoon na. mais il faut ñu nangu léegi quand même Adja Sénégal changé na. les choses ont changé. waaw les choses ont changé gis nga loolu bu ñu ko nanguwul rek dañuy def erreur fokk ñu nangu ko ñeme ñeme ko aussi comme ça ñu mën ci indi plus tard ay solution mm-hmm. gis nga léegi li tax dëkkandoo yi xaw a doy waar mooy que d'abord compétition dafa am ci doomu aadama yi compétition. Mm-hmm. te compétition li muy indee mooy wujjee mooy wujjee ku ne teg bët sa morom. ku ne teg bët sa moroom te yàlla na ñu yàlla musal ci dëkkandoo buy wujjee mm-hmm. waaw parce que dëkkandoo buy wujjee loo am day yaakaar ne da koy ñaawal ba dana tax moom tamit mu dem jéem a wuti loolu pour wane la man tamit am naa ko wala man naa ko mu tax yàlla ñu yàlla musal ci dëkkandoo buy wujjee parce que jamono ji ñu toll jamono compétition la nit ñi fokk nga wane ne tekki nga dara ci biir tekki dara googu nag surtout ci jigéen ñi sax la ëppee ah vraiment yàlla ma yàlla baal mais jigéen moom dëgg la ku jee dafa bari neexul nag waaye la ku jee dafa bari bu ñu gisee ne kii jëkkëram mi ngi gaare oto uh-huh. te yow sa jëkkër gaarewul oto bu amee ci moom benn emprise dina ko nekk ci nob bi di wax wala mu di ko def ay façon pour ne ko demal wuti oto ndax kii gënuma waaw ëppale ma dara guma te xamul ne yàlla dafa bind te wërsëg yi yemuñu liggéey yi yemuñu mm-hmm. est-ce que yaa ngi comprendre compétition boobu moom moo xaw a doy waar ba nga xam ne léegi ah dëkkandoo yi dañu changé aussi yàlla def si aussi ne dakaar ni ñu dëkkee fii mm-hmm. ay doxandéem rek lañ ay dox daje lañ dakaar dafa bëri dox daje mm-hmm. dakaar dafa bëri dox daje ni ñuy dëkkee ci appartement yi ni ñuy dëkkee ci néeg yi man na ñu jàpp ne kat kii ay dox daje rek su ma xëyee na la salaamaaleykum maaleykum salaam dem naa doxee samay soxla yenn sax du ci am salaamaaleykum yenn saa yi sax du am waaw donc Adja li nga wax dëgg la bu njëkk ba am na nu dëkkandoo tëddee woon muy façon bu ñu naw mhm. mais dëkkandoo yi léegi dafa laaj sax ngay am seetlu ci ñoom parce que aussi dëkkandoo lu jata xam ban façon dëkkandoo nga dëkk